حكانت لنا الحارس بن همام حارس دوم همام قال واحنا من حارس نيه شخصت دمنا من العراق جوجا العراق الى الغوطه جم غوطه غوطه مميت ذكرى <coughs> شدي مش قفوف وانا من زوجور دين برم نار غورلا ولا زوجور دين برم فرقلا فرقه mooy fas woo xam ne nii karaw ga dafa gàtt lool ngir duuf gim duuf ak rëy gim rëy mar bu wutatin ba da bañ xeew nga xam ne dañ koy yefal rek xeew ko di ko jox muy lekk waji datin borom kom laa max bu wutatin ba da bañ ñee ko xam kom laa koo xam ne nii ku ma gis rek daal di ma ñee yul xii nii mu may foloo xuluwu zarin yi feex a xol maa ngi am xol bu feex boo xam ne àndut ak benn njàqare loola waral saa su nekk rek may foo xam nga ne fii xool daf laa war a jaamuloo yàlla na yàlla mi la dimbali ba amul benn njàqare sa xol boobu da nga war a delloo waaye yàlla dimbali la amul benn njàqare ngay foo rek te a xam dëgg ñu bëri buñ seen xol féexee foo rek la ñuy def wes dayi nii mu ngi may yóbbaale xofoolu dara fees ak batt maanaam bëri alal la ci lam sama batt bu fees bi moo may yóbbaale maanaam mooy tax may rëy di kontaan saa su nekk rek laa wax de dégg nga fala ma balaxtuha ba ma jotee dëkk boobu baada shiqi nafsi gannaaw coonaak bakkan wa in daay si ak sonolo ak sama gëlëm ak songongloo sama gëlëm <coughs> gëlëm gu dëgër muy ans alfaytuha ci laa fekk dëkk boobu kama tasifuha comme nu mu koy melalee alal sunu làmmañ yi wa fiyaa nekk na ci maa tashtahi la dana ko fooytoo bakkani wa talazu dana ko neexloo al ayunu bët mu ne ba ma demee ba ci dëkk boobu dégg nga muy xuuta fekk naa ko daal lañ doon wax ci moom yëpp ma fa fa shakartuma sant yi dan na waa loxol tàqalikoo su ko defee nag waaw tàqalikoo gi nga xam ne ni tàqalikoo naa ko sama dëkk ba ñëw fii ma si yàlla wala yeddan na waa xewal ak tàqalikoo yedd danay firi xewal ma daw talaxan ak wët wala ak lef maa la waa nag bànneex ba ma demee ci dëkk boobu daal ma sant yàlla ci xewal googu su ko defee sama bopp rek ak sama bakkan lu bakkan bi bëgg rek ma def ak moom loolu mooy ma def ma daw ak lef ànd ak bànneex wa tafixtu ma commencé afuddu di toj fiyaa ci moom xutuuma shahawaati kubéeri bànneex yi lépp loo xam ni rek dafay baare bànneex man toj naa ko dem dugg ca biir bànneex ba waaj te nii may witti xutuufa la zaati waaw kotiteefu bànneex ya maanaam bànneex daal bu kubéer bu doon daa am kubéer hmm. toj naa kubéer yi ba dugg ci biir hmm. waaye bu doon meññet la xamal ne maa ngi witti meññet yi gën a ñor hmm. ji bànneexu ci dëkk boobu ilaa an shara ba mu commencé safarun tukkikat ya safarun mooy jamo la musaafiroon yi fi ci dem iraq dégg nga waqad istafaqtu taqiqinaa min iraqi ci guddal tukki waaw ba nga xamee nag tukki kay yi nag ñoom bëgg nañu dem Iraq te man tukki ga sàppi na ma ndax dëkk boo fa yàggee lu neex neex ak yow mu mujj sàppi rek loolu war na àddina dara neexut ci mm-hmm. ndax loo xamul daal mm-hmm. mën naa réeg nga koo soxla bis ko nag du dara rek laa wax de mm-hmm. daf lay sap mu ne nag dem naa ba xiqi ci xóotal tukki googu maanaam tukki gi sàppi na ma te tukki kat yaa ngi dem Iraq ma nit mu min mu bëgg dem Iraq comme ñëpp de mu faadani mu dellu ci man iidun ak feet min taskaaril watani ci fàttaliku dëkk ga rek dëkk ba rek laa wax de <clears throat> wala boog faadani mu dellu ci man iidun la ma baaxoo woon min taskaaril watani ci fàttaliku dëkk ba wala faadani mu dellu ci man iidun <clears throat> waaw ab janeer min taskaaril watani ci fàttaliku dëkk de iidu danay firi feet iidu danay firi la nga la la baaxoo dikkal rek moo xam njàqare la wala jënee rek wala lu la mën a doon maanaam daal mag bëggaat léegi fàttaliku sama dëkk wala ani na ak sopp ila la atani jëm te daaju gërëm ya daaju gërëm yi mooy këram rek laa wax de dégg nga waaye na mm, fi gërëm yi di góor loolu moo di attan góor waaye gërëm waaye nag moom lañ ci ne mooy këram wala xam ne nag sopp yi daan jëm ci sama kër wala ci daaju gërëm yi de faqawattu ma daal di mabbu xiyaamal xaybati xayma yaa moom faddu la maanaam tukki gi daal ci laa ko foofu ndax léegi nag mun naa dellu sama dëkk waa sajtu ma tegal jawaalal aw bati naaru góor baa moom dellu la rek laa wax de dellu ci dëkk bi daal bu doon naaru góor la nga tegal defal naa ko teg pare pour war ca maanaam pare naa pour dellu ci dëkk ba <clears throat> wala maata habat ba mu préparé arifaaqu sett sa sett nag buñ ko waxee mooy mbooloo ma mbooloo mi xand ba tam sax war a waxtam tembu al ittifaaqu dëppoo bañ demee ñun ñëpp ñu daal di dëppoo rek laa de alax naa ci lañ ragal meneen masiri ci dox duna sishaabil xafiir yi ci lu dul ànd ak gardien ñun ñëpp ragal nañ dox dem tamuñ gardien ku ñu garde ndax yoon wi daal wóorut forut naaw ñu sàkku gardien boobu من كل قبيلة تبيبو كوريل وعملنا نجفلو في تحصيلي تعملكو الفحيلة جنية بخي دفنا جنية بخي رك فرام غاردة كوني غاردة واي همونكو فعن وزن مجفة وجدانو أمكوري فكونكو فن في الأحياء تي كارسي حتى خلنا بنجرتو أنوني مم غاردة ليس نكون من الأحياء تي ويدندي دمنا بجاب فنا دالكو يدندو كمانا غاردة نكو تفيل faxaaral mu daal di gërëm li awas yi ngir jëfam ngir jëfeem uzumu uzumu sayaarati waaw dogu waaw e, e, njëgg ma sayaaratu mooy dox kat ya maanaam tukki kat ya dégg nga seen dogu yi daal di gëlëm xamul nu ñuy def ndax mu ñoo dem taamul gardien te mun ñoo ñàkk dem wante daw ñu dajaloo bi baabi jeeru na si buntu jeeroon waaw moo di buntab dimishq rek laa wax de dégg nga ñu dajaloo fa li si charati pour diisoo fa ma zaalu dañu nag benn àqalin ci diggante fas waxalin ak fecc léegi-léegi ñu wax dara léegi-léegi ñu dindi dara mm-hmm. wa chasirin mm-hmm. ak raw ak benn mm-hmm. baram wa saxlin ak de wa chasirin ñaari baram wa saxlin ak raw ak benn baram de chasru mooy nga raw ko ñaari yoon sahlu moy nga raw ko benn yoon mhm. malam leg léegi ñu andi xalaat bu deugar mhm. léeg leg ñu andi xalaat bu ma rek bo xamni ma nga sey japp gaa waaye dëgërul noonu mhm. xalaat bu deugar bi nak moy raw ak ñaari baram xalaat bu ma bi nak moy raw ak ben baram de ila na fi da jeex attanaa ji diyaale rek la wax de waqanata mu naagu raaji ya yakar dem nañ ba lañ waron wax jeex ka yaakaaroon am garde ñee naagu ndax la amutuñ ben pexe wa kana nekkoon na xisatuhum seen wet ba ñu diisoo saxsun jëmm joo xam ne mii samu hoo mandargaam mii samu subaani comme mandargaam waxambaane la wala boo su yéreem lu boo sa ruux baani comme yéree labbe la labbe am na seen wet nag koo xam ne nii boo ko xoolee daal da nga xam ne jëmm ji moom xale la waaye nam solo daal dafay mel ni ab labbe ab sëriñ la jaamukatu yàlla la ku dëddu àdduna solo bi solo mag la waa yaram bi yaram bu yaram mu yëre la de gis mu nekk paa léeg mu nekk xale boobu yedd yi nekk na si loxoom subhatu niswaani kurusu jigéen kurus yooyu jigéen ñi di sàbbaale moom la yore mel ni ku dëdd àdduna wa fi ayni nekk na ci bëtam yi tarjumatu nashwaani waaw mandargaa yi aji mandi boo ko xoolee daal dangay gis mandargaa yi mandi ci bët nga xam ne kii moom dafa mel ni yàgg naa mandi waaye ni solo soloo sëriñ la yaram bi ndaw la doo xam daal foo koy classé mm-hmm. waxat xëy da te fekk tënk na mm-hmm. wala boog ñawal na laxasoo gendakom bil jami ci mbooloo ma mu mm-hmm. ngay xool mbooloo ma rek bu arafa dàgg na usunahu ay noppam listiraaqi sami pour sàcc ak dégg rek laa wax de dàgg noppi nag li si mooy jëngal la noppee rek pour sàcc ak dégg fala ma ana ba mu teewee ah. dañuy wax ana ak ana ak xaana yëpp teew na rek xaanal waxtu aanal waxtu anal ana ak ana ak benn maanaa la yore am na téere bi nu fa la ma ataa ba mu dikkee waaye fa la ma a de ba mu teewee rek in kifaawum seen ak dellu bari bari xatta dañ na te feeñ na mhm. lawu ñeel ko xafaawum seen ak mbóot mhm. ba nga xamee ne waxtu dellu jot na mhm. Abu Zayd nag xam na mbóot yëpp li gaay di ñaxtoog lañ bëgg yëpp xam na ko xaala ci la wax lahum ñeen leen leen yaa xaw mi éyee nit ñi liyu frex naa wuññeeku kar bukum seen ak njàqare dégg nga ifraax ifraaxul kër bu mooy zahabul xusni zahabul kër bi dem ak la nag dégg nga bir xaa dégg nga na wuññeeku kar bukum seen njàqare maanaam na seen njàqare dem wali aman na wóolu sir seen mbooloo dégg nga dañu wax ne fulaan aminun fi sirbihi ay fi nafsihi wa ahlihi seen mbooloo maanaam seen ak bopp seen ak njaboot na ngeen ci am kóolute leen daal seen mbooloo maanaam na ngeen xóolu ne da ngeen am jaamu te seen njaboot duñ tiit fa sa axfurukum leen garde tey gardien la bi maa ci nga xam ne yasru dana wuññi rawaxakum seen ak njàqare woyab du muy feeñal tawaxakum seen ak topp de danaa leen garde loo xam ne nii dana dindi seen tiitaange te dana dana dana dëppoog seen bëgg-bëgg xaala wax na raawi atekat bi ne fastat la fastat laana ñu fenkloo minu ci moom tilal xifaarati dëgg-dëgg garde ga ñu ne ko léegi garde gi nu muy demee noo ñuy garde parce que kat ku la wax dañuy garder kat war na la andi lo xamne ni kat sa xel dana dal ba nga xamne ki mom moom waaw bu nar dara bu dara naree xew man na man na see jàpp ndax dafay boole gay soldat wala nu mi def tilaaw bi moy haqiqatu khifar waas may na ñu yëkëtil law ñal ko al ja'alata fay ani sifarati ci ambassade ba wala ani sifarati ci aji ci xéwanal ja ñu ne ko garde gi ni mi deme su fekkee dañ ñuy wutal ku ñu garde loolu mooy sifaara asafiir mooy kii boole diggante nit ñi ñu ne ko bu fekkee nag ñuy boole keneen loolu mooy sifaara yi duutee danañ la fay fay gu kawe ñëw ne moom moo leen moo leen garde ñu ne ko même boo ñuy boole keneen di def sifaara dox suñu digganteeg nit it danañ la fay fay gu rëy ndax soxla lañ ko ah. dégg nga fa mu xoote annaha ne garde googu kalimaatun baat la yoo xam ne luqinaha sanañ ko ko fil manaami ci nelaw li yaxtarisa pour mu moytu ndugu bi ci moom min kay di anaami ci fexe mbindee fi mu ne li ma leen garde daal ay baat la baat yi ba may nelaw la ma ko yàlla sax soo ko de soo ko waxee baat yooyu soo ko jàngee kenn du la al dara fi moom sëriñu tareex la mm-hmm. fa jaala mu commencé nag baab dunaa ñenn ci ñun mm-hmm. yuumidu di junju ilaa baaxalin jëm ci ñenn wayu xalibu muy jàllar bi tarfa yi ñaari bët mi bay na lax sin diggante gendeeku waxadin ak gëmm ah su ko defee nag ñenn si ñun daal di xool ñenn ñi di junj bët rek léeg-léeg nga xool sa bët léeg-léeg nga gëmm ko pour wane daal kii daal dafa mel ni waxu fi dara wata bay mu bér maanaam mu leer <laughs> lahu ñeel abu zeydi an naa ne ñun istadaaf naa sàkk nañoo lottuloo alxabara xibaaram wastasaar naa sàkk nañoo njiitloo alxabara lottu wala ak yoxam abu zeyd daal dem na ba ko ne xibaaram bi dañoo jàpp ne xibaar bu lottu la te la nekk suñ biir moom mooy ne suñ xaatir nanguwut yoo xam na lool nanguñ lii mu wax fa qaala abu zeyd ne maa la maa ana lu len ñeel tum japp ngeen wala jàppee ngeen jiddi sama góorgóorlu gi abasan muri fo wajaltum ngeen def tibri sama pedem bi khabasan wa tibri sama wurus wi khabasan muri pedem de lutax li may wax di deug yeen ngeen def ko ay kaf ma andi urus, wurus ngeen nan pedem la lu wala taala maa jubtu yàgg naa dagg wallaahi maa ngi gën ci def maxaawifa al ragali gox ya wala tuma dugg maqaahima waaw mbëmb yu màgg yi maqaahim jamu maqmaxa maqxama mooy mbir yu màgg yi axtaar nag mooy jamu xatar rek mooy danse naa dagg gox yi raglu dugg ci danse yu mag yi fa xaniituma doylu bihaa ci baat yii an musaahabati xafiirin ci ànd ak garde ñee de ba mu daan dem fu raglu daal baat yi rek laay wax soxlu ma benn garde ñee wastisaabi jafiirin ma doylu waris ànd ak waaw tungaar te tungaar tungaar nag boo ko xamul mooy defukaay fet mooy jafiir baat yi rek laa doon wax yoruma benn fet daal di mucc su indi topp man saan fii danaa dàq maaraabakum la leen sikkuloo wa astasillu danaa dindi danaa ñori alxasara mooy tundu ko allazi bi nga xam naa naabakum wàcc na ci yéen wala naabakum jot na leen rek laa wax de waaw li ngeen di moytu danaa ko dindi mooy ragal gi ngeen ragal am jafe-jafe ci yoon wi danaa ko dindi li sikkit da ngeen dem ba gis ne ndeke du noonu li may wax dëgg nu ma koy defee bi an uwaafiqum bi an uwaafiqakum te danaa ànd ak yéen fil badaawati ca àll ba fil badaawati ca àll ba mooy ma dox ànd ak yéen rek oo raafiqakum ma ànd ak fi samaawati ci ndoxam samaawa de ndoxam samaawa nag ndox la buy nekk ci xàll waaw wala ñu ne samaawatu xàll la bu nekk ci diggante Saam ak Iraq <laughs> lool mooy samaawatu ñu ne ndoxam ndoxam uh, àll ba rek mooy taataay ak yooyu moo di samaawatu ba dana ànd ak yéen daal fi samaawati ci ndox ndoxam xàll ma wala fi samaawati ci xàllab samaawa feeñ sadaqakum dem dëggal na leen waa di sama faa faajiddu waaw na ngeen bëril di sama cër denga wala faaji du na ngeen deggal sant sama cer, waa si na ngeen taxel jaddi waaw sama cer rek la wax de jaddu moy mur su fekke nak waxna deug gadren ba ngeen hegg taamu leen benn ngeen dora deggal sama taxé manam ngeen dor ma jox ak may te ngeen jox ma may gu dëggu ma may gu may gu foor rek de mooy waa si lu kon moom du fayeku lu may ba ngeen yëggee wayen kasabakum dem fen loo na leen fam mii sama gémmiñ fa masiqu na ngeen foñati adam sama der wa ariqu na ngeen tuur dam mii sama der su fekkee waxuma dëgg nag benn jafe-jafe xaw na xoj leen sama der ngeen tuur sama deret ah léegi nag gars yi xaw nañoo gëm ndax moom teeltu laaj xaalis teeltu def dara te day ànd ak ñoom xaala wana alxaaris ibnu xamaam xaaris doomu xamaam ne fa ulhim naa ñu yenk wan ñu tasdiqa ruyaahu dëggal géntam ka wa taxqiqu maar a taxqiqa maar waahu ak dëggal lam nettalee su ko defee nag yàlla yenk wan ñu mooy mu may ñu rek ñu gëm la wax mhm. fanazana ñu daal di nocc nocceeku mu mujadalati mhm. ci weranteeg moom de ñu daal di ba weranteeg moom wastaham naa ñu participer mooy ku nekk eh, eh, joxe wàllam mhm. ala muadalati ci porte ko porte mooy mu yëg sa gannaaw gëlëm gi tey bu yéegee ci gannaaw gëlëm kii suba mu yëg si gannaaw gëlëm kee eh, bu ci kanamee ci gannaaw gëlëm kee noonu lañ ko defee wa fasam naa ñu daal di dagg bi xawli ci waxam waa xoral rabaay si buumi gàllankoor ya bépp buum goo xam ne dafay dox suñu digganteeg moom ñu gu ñuy gàllankoor ñu dagg ko daal di gëm lam wax waal xëy naa ñu neenal itixaala bi si jàpp aji foja wala isi ak aji yàq jëre képp koo xam ne dafay fo wala muy yàq suñu digganteeg waa ji ñu neenal ko daal di gëm lam wax rek waaw walla maa uqimat bañ takkee ari xaalu laxas ga mooy ñu takk bagage yëpp wa fa mu jege atar xaalu dem waaw istantal naa dañ sàkko wàcciloo kalimaati ay baatam mhm. raaqee aji moccure <clears throat> li na ñaalaa ngir ñu def ko alwaaqee mu aji musal bañ demee nag boo war dem takk bagage yëpp ñu ne ko aywa waxal baati mocc yi ngir ñu musloo ko de mhm. albaqee muslu gi aji des fa mu ne lee qara na jàng kullun képp min kum ci yéen mhm. umal quraani fatiha kullama azala jege almalawaani suba ngoon buy bëccëg gi di dugg nga jàng fatiha mhm. teg ci ñaan gi bu ngoon di dugg nga jàng fatiha teg ci ñaan gi ba léegi ñaan gi am na ñu koy muslu mhm. dégg su ma la na wax bi lisaanin ci làmmañ xaadin baaji toroxlu wa sawtin ak kàdd xaashin bu aji ragal yàlla mm-hmm. ne allahuma yow buur yàlla yaa muxiya mm-hmm. yow muy dekkil yax yu funux yi mm-hmm. wa yaa daafian afaati yow muy jañ gàkk-gàkk yi mooy luy naqari doomu aadama wa yaa waaqiyal yow muy fekk ragal yi wa yaa يومي اجي تدك في ويا مو الى العفاتي يومي خما يا يد واي واي خارانيا ويا ولي العفي يا اجي منغو جيغري قل ما فاتك جامون اك جامال دنگا يومي خما يا منغو جيغري اك جامال يا جوخ جيغري اك جامال لا سي نمري صلي يالا نغا جولي على محمد سي محمد خاتم الانبياء كان كي متري سيونتي ومبلغ ان ان te mooy jottali sa xibaar yi de mm-hmm. mboolem say xibaar yonent boo ko jottali mm-hmm. masaabi usrati mm-hmm. ak ci lamp yaa moom famem la lamp yi ñi famem mooy giiram gi mbokkam yi nga xam ne ni dañuy leeral njub ba mel ay lamp wa mafaati nusrati yàlla nga julli ci caabi ndimbalam te mooy waa ansaar yi ñi ko dimbale woon yàlla nga julli ci ñoom de wa ayis nii yàlla nga ma musal yow yàlla min nazaxaati shayaatini ci yàqi seytaane wa nazawaati salaatini ak tëbik seytaane yi ak ak tëbuk buur yi dégg nga mooy notuk buur yi rek de wa inaatil baaxina ak sonal ak way bew yi way bew yi sonal giñ lay sonal nga ma ci musal mm-hmm. wa muanaati taaxina ak jànkuwanteeg way bew yi ñi nga xam ne dañoo bew la ñuy ci tooñ ci moo yàlla ak ci naqar mm-hmm. yàlla nga ma ci musal mm-hmm. wa muadaatin aadina ak noonoo way jàggati yi ñi nga xam ne nii dañuy jàggati yàlla nga musal ci noono anteeg man wax du mhm. waa nil mu aadina waaw ak jàggateeg way noono yi de mhm. wala tooñ ak way noonoo yi mhm. ñi nga xam ne dañ ma noonoo seen ak tooñ yàlla nga ma ci musal waxala bil xaalibiina ak notoog way not yi ñi nga xam ni dañuy not nit ñi yàlla nga ma musal ci ci ñu not ma wasala bi saalibiina ak rekki way rekki yàlla nga ma musal ci rekki kat waaw daal di rekki sama mbir rek de rekki nag mooy jël ñoo rek jël sa jël sa nangam jël sa nangam not la laal yàlla nga ma musal ci kenn not ma waxyi lil muxtaalina ak pexe way pexe yi yàlla nga ma ci musal waxyi lil muxtaalina ak yongaan way yongaan yi yongaan mooy bett nit ki rek waaw daal di ko rey wala yi demee noonu yàlla nga ñu ci musal de waajir ni yàlla nga ma musal allahuma yow buur la min jawrin mujaawirina si jeng waaw way dëkkaale yi yàlla nga ma musal ci koo xam ne da ngaa dëkkaale ak moom mu jeng ba mu jaawalatil jaahiriina ak dëkkaale ak way jeng yi de yàlla nga ma musal si ñu ma xas dëkk ak ba pare ñu daal di jeng waaye yàlla nga ma musal may dem di dëkk koo xam ne sa jeng kat la far boo ku fa yàlla nga fekk ani ci man ak ku fa daay mi na tenqi tooñkat ya waaw képp koo xam ne tooñkat la yàlla nga ma teel loxoom ba du man ci man dara waax ni nii yàlla ma génne min zulumaati zalimina ci lëndëmi tooñkat ya azulmu zulumaatun yawmal xiyaamati yàlla nga ma génne ci lëndëm goog de lëndëmi tooñ daal yàlla nga ma ci musal muy bakaarab tooñ waa di xil nga ma dugal bi rahmatika sa yërmande fi ibaadika say jaam saalihiin dafay baax yàlla nga ma dugal sa biir jaam yu baax yi allahumma yow bur yàlla xottu ni yàlla nga ma wër maanaam yàlla ma wëttu fii turbati ci sama suuf maanaam sama réew wa xurbati ak sama tumuranke mooy fudul sama réew de wa xaybati ak sama faddu mooy sama tukki wa awbati ak sama dellu ak bu may dellu ci tukki wa najaati ak sama forlu forlu mooy may wuti ndimbal ni la lañ cosaan bi nag mooy sàkk ndox ak ak mbopp ah, ak ñax ci àll waaye buñ waxee eh, buñ ko askanee mooy dem na rek di sàkku ndimbal su may wuti ndimbal yàlla nga ma musal war a jaati ak sama dellu si woo tasuru fii ak sumay ak samay soppandiku si samay soxla ni may yëngatoo di jéem a lijjanti samay soxla yàlla nga ma si musal nga mun sara fii ak sama wàññeeku mooy su may tourné si moo paree si soxla boobu wa taqallu bi ak sama jàllal bi ku wa mun xale bi ak sama ak sama tourné rek laa wax de wàññeeku moom wax na ko ay yoon yoon bari yëbbu ko rek tasar euh, rajaati munqalabi munsarafi awbati yëpp wàññeeku lay firi dégg nga wax fas ni yàlla nga wëttu fii nafsi si sama alal wana faay si ak sama way gànjare de gànjare mooy sama euh, fii nafsi lu mu ko firee sax ci sama bakkan laa bëgg a wax wax fas ni yàlla nga ma wëttu fii nafsi sama bakkan wana faay si ak sama way gànjare gànjare mooy yu seer ma am mooy sama alal yu seer yi nga nga ma ci wëttu de waaye di ak sama der yàlla nga ko wattu waara di ak sama marchandise yàlla nga ko wattu rek laa wax de waada di ak sama njaboot waxda di ak sama xadu mooy la ma denc ngir bu jamono naqaree loolu yàlla nga ma nga ma ko wattul yàlla nga ma wotul sama bopp wotul ma sama yàlla yu seer ma sama der wotul ma sama marchandise wotul ma sama njaboot moo di adat wattul ma li ma denc moo di uddat jama uddatun wasakani ak sama ñooñ yàlla nga ma ci wattu wa maskani ak sama dëkkuwaay yàlla nga ma ci wattu de wa xawli ak sama kattan wa xaali ak sama mbir wa maali ak sama alal wa maali ak sama delluwaay yooyu yëpp yàlla nga ma ci musal wala tulxiq yàlla bu la yéegee ci man taxiran benn soppeeku yàlla bu ma dem ba si ma soppeeku jëm ci lu bon waa wala ci yàqu wala tusallit yàlla bul xiir alaya sama kaw mu xiiran aji lokki mu aji song yàlla bu mu mënal dara wa yàlla nga def lii ñeel ma min la dun ko fa yaw sultaanan doole nasiran di aji dimbale ma yàlla nga may kattan <laughs> goo xam ne ni dana dimbale tam jugee ci yow allahuma yow bur yàlla oxrus nii yàlla nga ma wattu biay ni ka sa bët waaw ni ka ak sa ndimbal moom ñaanam yi sax bu fekkoon ne mm, waxuloon dëgg sa ñaan yi sax moom kooku musloon naam yàlla musal la nag parce que ñaan ñaan gu matale la allahuma yow nga ma wattu bi ay ni ka ci sa bët waaw ni ka ak sa ndimbal wax sus ni yàlla nga ma jagleel bi am ni ka sa kóolute wa man ni ka ak sa ngëneel waaw wa tawalla nii yàlla nga ma méngoo bi ka sa tànn wa xayri ka ak sa yiw yàlla nga ma méngoo daal tànn ma di ma jox sa yiw rek wala takkil nii yàlla bu ma wakiil maanaam yàlla bu ma bàyyi ilaa kiraati xayrika jëm ci wëttu kudul yow bu ma bàyyi mukk keneen kudul yow di ma garde ndax kudul yàlla bu lay garde rek yaa ngi ci éeréel mhm. waaye garde ñee bi gën a foor moo di yàlla moom mhm. kenn du xam lan la daal waaye kenn mënul la dara loolooy garde ñee bi gën a foor yàlla ñu ko yàlla defal mhm. waxab li yàlla nga ma may afiyatan jàmm xayra afiyatin boo xam ne du aji ràpp yàlla nga may jàmm joo xam ne du ràpp ba mukk <laughs> dégg nga وارزقني يا رنو ورسقل رفاهية النفلاي غير واهية بو خمي دولتو ما وردو غاويكو يا رنو ما نفلاي غو خمني دوانيكو بو مكو دو يقو وكفيني يا رنو مفقل مخاشي اللأواي رجلي قد قد اللأوا موي تتري دينغا يين خمني ني قد قد لن ني دي رجل لون ني ني رجل كو دينغا يا ما تي موسل وكنفني يا ما وطو bi xawaachil bi xawaachil alaayi ci muurug may yi yàlla nga ma wëttoo ay may yu bëri yoo xam ne dem ba mel ni muur wala toujours yàlla bul gañeloo bii ci man afvaaral en daay weeyu noon samay noon seen wee yàlla bu man ci man dara innaka naka yow samion doyen ji dégg ñaan nga loolu mooy ñaan nga su ma mu sengem sengem mooy mu sëgg laayu diir du delloo laasan benn gendeeku wala du wëndeel laxsan benn gendeeku wala yuxiru du delloo lafzan benn baat mu gëmu daal waxut dara dégg nga axaara goog jàngoon nañ ko fa ma axaara xawlan xataa qul naa bañ wax ne xad ablasatu noppiloo na ko al iblaas maanaam sukuut xashetun ragal yàlla aw axrasatu wala mu luuroo ko xashetun ñu ne waaw góor si moom ragal yàlla tax mu noppeem dafa xam kon noppi na lu yàgg sëgg mais ni ko xam ni nekkut loolu lépp ci bagage mi la bokk su ma naa topp mu yëkkati raasoo boppam ca kaw wa mu yéegal an faasoo ay nooyam nooyi gannaaw nooyi ca kaw pour gars yi gën a gën a ne waa moom عرس لي فناني وقال من اقسم معي جن بسماء يا سمان ذات الابراج يي بروم غنا معي جن يا سمان سيغا خامني دا فا ام اي بروج اي واتي وايو بيديو ني ديكو فيري غنا ولا ديك سوف ذات الفجاج يي بروم مبد من كل فجنا ميخ معي جن سوف سيغا خامني فامي مبد والماي اك ندوخ asajaaji bi aji ballaakoon maa ngi gën ci ndox mi nga xam ne dafay ball di sotteeku rek de wasiraaji ak lamp ba alwahaaji bi aji leeralaakoon te moo di jant ba wal baxri ak géej ga al ajaaji bi aji cooxaakoon ajaaj <laughs> jamoo dégg nga ajiij mooy loo xam ne nii am na kaddu dégg nga géej gi am kaddu gi maa ngi ciy gëñ wala hawaaye ak la wala ajaaji ak pënd maa ngi gën ci ngelaw laa ak pënd ngelaw ak pënd ajaaj bu amut shadda bi mboom pënd lay firi ne innaha naka ngëñ naka ñaan googu lamin ay manin wasi mu ngi bokk ci musluwaay yi gën a barke waax naa doy naan kum waris leen min laabisil xuwas ci aji sol waaw mbubon koŋ Dengar. Li lii doy ba soxlu len sax sol mbubam kong, ku sol kong kon il mënul len dara man dara sa ku ko jang hande ti samil falaqi sa jamono mu ak suba ga manam bu fuñe gi suba gi di feñ ku ko jang la mushfiq du ragal min xat bin ci ben mbëmb mbëmb moy lu danser ila shafaqi ba shafaq shafaq moy ba ngoon mhm. la ci namm mhm. xam nga shafaq mooy firi xonk-xonk jant bi dugg mhm. waaye fi lañ ci namm mooy ba ngoon rek laa na ku ko jàng ci suba ba ngoon du ragal dara bu mën naa jaa ku diyaaleeg bi aa ak moom dégg nga dem na suma ci njël ak waa euh, euh, guddi ga xasaq mooy lëndama guddi gi dégg nga taliance nag mooy awalu rek awalu du xuri zulmati lay lay fii ku ko jàng daal si njël ak guddi gi amina wóolu na laylatoo guddeem lépp mina saraqi sàcc ñaan gi nag ñaan gu baax la def na sëriñ Tuubaa di laan war sax bind na ko woy na ko hmm? xam nga wala yàlla yi yoo xam ne du tus ay ay léebar ñu di ko woy waaye moom téere wax naa la mu dugal ci loo xam ne jidd la léeg mu dugal ci loo xam noo xam ne ko mën a jàng mais lépp lu ci dugg rek ay la waaw dugal ci lu am solo waaye bàyyi noonu rek ku ko jàng daal ci njëlbeen suba gi du ragal ba ngoon ku ko jàng ci njëlbeen ngoon gi guddi gi yëpp sàcc du ko mënal dara xaala mu ne fa talaqannaaha ñu saloo ko ñaan googu hatta atqannaaha bañ xereñe ko wa na ñu jàng ko li kay sa ngir buñ ko fàtte rek laa wax de su ko defee nag ñu ne ko wax ñu ko sañu ko saxaat ko mooy waxaatal ñaan gi beneen yoon mu wax ko ñu di ko bind wala ñu jàng ko ba xereñe ko ko defee di ko jàng rek di ko jàng bañ ko fàtte moom moom lay wax ne wa tadaaras naa ñu jàng ko li koy ko fàtte su ma sér naa topp ñu dox mus ji di màng nag alxamu laatu gélém way yenu ya bi daawaati ci ay ñaan laa bil xudaati ci way ñaw ya yoruñ ay ñaw ko ay jaaseeg yooyu déedéet ay ñaan rek lañuy màngee gélém ya te nga ne nag dëkk yu mel noonu ku ci daan tukki foo nga yoree ñaw ko wanax mi ñuy xaar alxumulaat safiya Mm-hmm. safiya mooy lañ teg ci kaw gëlëm ya mm-hmm. bil kalimaati ci ay baat laa bil kumaat laa bil kumaati waaye nekkul ci ay jàmbaar mm-hmm. amul ay jàmbaar yu ñu ànd ak ñun du ñu xaaral suñuy bagage waaye ay baat rek la ñuy xaaree bagage yi wasaahi unaa suñu àndandoor bi nag yetaahaduna mu ngi nemmeeku bil xashi ci ngoon wala xadaati ak suba abu zeydi daal subaa ngoon rek mu ngi mu ngi xool wala stan jisu du sàkkoo wayloo min naa suñu anay daatu diggéeya waaye nag waxuñu def leen dara la ma diggoon def leen déedéet daf na tekk rek xataa isa ayen naa bañ demee ba jàkkaarloog nag at laala aanata genti aanata ya genti mooy garab yeeg tabaxi dëkk ba boo demee ba seen garab yi dëkk ba ak tabaxi dëkk ba hmm. yaa ngi seen ay gentam hmm. bañ demee nag ba seen aanatu googu xaala ci la wax la naa ñeel ñu ne hmm. al ianata aywa ndimbal la nag al ianata ndimbala ndimbal la aywa andi leen ndimbale leen ndimbal wala dimbale leen ma dimbale leen maanaam andi leen la ma digoon ndax léegi yegg ngeen fa axdar naahu ñu teewal ko almaaluuma lañ xam wal maktuuma ak ñu nëbbu waaree ñu won ko almaakuuma lañ takk wal maxtuuma ak lañ tëj li nga xam ne dañ ko ci mbuus takk ko ak li nga xam ne dañ ko ci barab bu ñuy tëj tëj ko lépp lañ ko jox alal yëpp alal yeen xam lañ nëbb ak lañ feeñal ak lañ nëbb hmm. lañuy takk ci mbuusak ak la ñuy tëj ci ay bouton hmm. yëpp ñu génn ko jox ko waxul naa ñu wax la wañal ko iq di atteel maa la nga xam am te yow xaalin aji nga ko fa maa doo fekk finance ñun xëyra raadin lu mu aji gërëm ñu ne ko defal lu la neex ñun loo def rek bëgg nañ fa mastaxafahu yóbbaale wut ko nag si wal lu muy aji xoyof ja te mooy xaalis waseyni ak taar ba te mooy takkaay moom daal la ko neex daal mooy xaalis bañ bañ ko jox ak ak takkaaya loolu rek la jël yeneen bagage yu diis yi nag moom waxu ci dara dégg nga wala xaliya rafetut bàyyi nii ci bëtam xeeru xal yi lu may takkaaya wala yi ni ak kaye loolu dafay dafay dafay tekki rek wax ji njëkkoon a wax takkaay ba ak kañ ya loolu rek moo rafet ci bëtam looloo ko neex faaxtama la mu gàddu minu maas ñoom ñaar weqaroo ak diisam wanaa mu buur bi ma ànd ak nga xam ne yesu du dana mëdd faqaraw ak ñàkkam su ko defee nag mu xenu loo xam ne nii waaw diis na lool jug nag tàqalikook ñàkk ndax la meenu lu bëri la jël na ci xaalis bi lu bëri ak takkaay yu bëri su ma xaalisanaa topp mu xor ñu nag mu xaalisata taraar comme xorog tafukat taraar mooy kuy ñëw rek xotti sa tubay sa poos tubay jël alal yëpp dem tafukat mooy taraar dégg mu xor ñu comme xorog tafukat wan salata mu rocceeku mi naa su ñun insiraatal faraar comme rocceeku dawaakoon ñi ne faraar tur waykat la woon dafa dawoon ci xare ñuy misaal képp ku dawati ci xare faraar ñu ne faraar mooy dawaakoon rek ku bari lu muy daw ñaari benn la ba mu paree daal mu daal di daw comme nu faraar daal di dawee woon ca xare ba moom noonu la dawee daal ñu réer de ndax bu réer moom su soxlaam pare rek pare na ci nit ñi waaye mu géem loo ñu imtiraaqu ak fëlëm fële mooy gaaw demam gu gaaw gi mhm. wala nasal dañun nan suduhu di ko jiptaane bi kulli naadin ci bépp penc jiptaane mooy ñu ko làcc de penc muñ dem rek làcc waaw gisu leen abu zeydin gisu leen waaji daal wana sax biru ñuy sàkkoo xibaar lu anu ci moom kulla muxwin képp ki aji bewloo waxaadin ak aji jubale kuy réeral ak kuy jubale yëpp kuñ ci gis rek laaj ko waaji mhm. xamaguñ nag mooy kan mhm. الى ان قيل بني واخ انو ني موم مزدخل جيف بام دوغي انا تا انا تا ما زايل تقلكو الحانة باربا بار موي فيني جاي سانغر <laughs> مزي بني موكا نيمي داف جاي دال كي دال بام دوغي دك با لغي مان سي باربا فاخراني مقير لوما خمغا حارس مو مو غنا خير سي نيب مقير لوما خبز هذا القول بنك بي لا واخ بسبكي سي سيغكو wax ju bon joju motax ma bëgg nak tu ba xam li ñuy wax deug ram déet walin silaake ak dugg fi ma ci na xamee la su nekuma min silki di bokk ci ràngam ma dugg ci lo xamni dal daal bokkuma ci buumam moy bokku samay mbir bokkuma ci xeetu lool moy dem ci baru sàng xam nga dafa haram dem ci bar ba rek tok fa dafa haram mu ne ma dugg ko fekk loolu du sama mbir waaye nag wax jee bon ba ëpp ma bëgg a xool lii am na am fa adlajtu ma daal di rañaan it laaj na mooy dox mujj guddi gi ila dëskërat yi jëm ca baar ba fii hayatin ci melokaan mu na këratin bañ soppi ci laa dox rek waaw dem ca baaru sàngara ba changé sama melokaan ndax bu ma xàmme fasa cheikhu nekk sëriñ ba fii xullatin mu ci ay koddaay mu masalatin yërëyeen cuub bay na dinaa ci diggante waaw mbuusi biteelu sàngara ya wa meex saratin ak nalukaay mag ma nag ah xam nga moom da tuddee cheikh waaye nag yaramu xale la yore fii cheikh parce que comportement mag la yore waaye yaram bi moom yaramu xale la fii looloo tax mooy fisa cheikh ndeke sëriñ ba moo tax doo ko sa mag ma sëriñ bi moo gën mu ngi ay takkaay yuñ cuub ci diggante biteelu sàngara yi ak nalukaay sàngara sara mooy jumtukaay nal sàngara waxaloo wër na ko nag su xaatu ay nàndalkat tabaxaru yoo xam ne danañ not ci taar am na ñu koy xellil sàngara muy naan ñu rafet wasumoon ak ay sondeel tasaru yoo xam ne dana leer mu ngi am sondeel yu tàkk wa aasun ak gëttëg aas wa wa ab harun ak gëttëg abaar mu ngi yore aas ak abaar yi nga xam ne neex xet lañ ay fleurs yu neex xet ba mel ni parfum dégg nga dégg nga su ko defee ab xarit moom da ko fiyee narjas waaye yaasimine moom it gàncax gu neex xet la looloo ko wër wa mismaarun ak kàddu yu neex wa misharun ak xalam mu nga xam ay way nag ñu koy wayal way yu neex ak ay xalam woowu moom taaratan léegi-léegi yastabziru mu ngi sàkkoo ubbiloo ak dinaa na biteel yi rek laa wax de léeg-léegi mu ne ubbi leen biteel yi wa tawran léeg-léegi yastantiqu mu ngi saakoo tuddloo ali daana manaam mu naan xalam yi ayoo na xalam yi na xalam yi xalam wa dafantan ci janu jañu maanaam léegi-léegi yastantiqu mu ngi saakoo foon rayhaana waaw gàncax ak rayhaan léegi-léegi mu foon flóore daal wa oxra léegi-léegi nag yu xaasiru ma ngay beejek maanaam ma ngay foog alxislaana jigéen ñu rafet ba mel ni jongoma ak xale yu taaru yooyu nekk ci wetam ñooñu lay foog léegi-léegi ma ma demee daal la ma ko fekk mooy ma nga toog sol yére yoo xam ne dañ koo cuub bitéeli sàngara yaa ngi ko wër nalukaay sàngara yaa ngi ko wër xam nga am na xaalis bu bëri am ay xale yu rafet yu góor ak jigéen yu koy xelil muy naan ak sondeel yu tàkk ak fleur yu neex xet ak kàddu yu neex ak ay xalam léegi-léegi mu ne aywa ubbi leen bitéelu sàngara si ñu ubbi jox ko mu naat dégg nga léegi-léegi mu ne ay wax xalam gi na jug ñu xalamal ko léegi-léegi mu fóor funoo mu foon fulóor yi léegi-léegi muy foo ak jigéen ñi ak xale ya fala ma sartu ba ma yëree alaa lab ci ci lëntëm xam mbir mu bette wa tafaawuti yow mi ak wuteeg bisam min am ci ci démbam tayam ak wuteeg tayam min am tii ci démbam ba mu demee ba gis ne waa ji daal tayam ak démbam wute na xultu ma wax loo ñeel ko awlaa mbugal lakka ñeel na la awlaa googu lakka baatu tëkku la comme waylun lakka rek mbugal ñeel na la yaa manawu na yow ma njër bu mi awun siite ndax dañ laa fàtteloo yow ma jayruuna bi bisab jayruun mooy bañ dajee ci buntu dimishqa nga mel ni sëriñ di ñuy jox ñaan googu xaara nga fàtteloo fa daxika mu daal di ree hmm. mustaxriban daa ji moom hmm. bañ ko waxee loolu xaqataay la si teg hmm. su maan sera topp mu sadd way mutriban dégg nga daa ji sigir léewu waaw maanaam daa ji kontaan rek laa wax de lazimtu comme ku ku naan ni muy amee sañ-sañ noonu lay woyee lazimtu taqoonaa asifaara tukki rek laa wax de wajubtu alxifaara àll payangaan ya mooy barab yu wéet ya waxiftu sib naa anifaara foñ mooy sori leen li aj ni ngir ma witti alfara mbétti de ci la ma wax ne ma bu ngeen gisee ma ànd ak tukki dog xal yi bañ a tàqalikoo yéen pour xam lu ma béggee rek moom laa doon wut loolu mu dugal ci lii lépp kon nag du ngeen ma ko yàqal waxut xuus naa asuyula asuyula yool ndey mooy ndoxi warutu tàggal naa alxuyula fas ya li jarri zuyuli siba ngir bijji mbicciti ndaw wala maraxi ak sigirle bu ngeen gisee ma jaar ci barab yi am ndox tàggat fas yi dama bëgg a jëf-jëfi ndaw rek ak ak ak ak jëfi ku kontaan maanaam damaa bëgg bu ndaw ak yére la jëfi ndaw ak yére la ma sol si yére yu jot bay diree ko suuf bu dee kontaan yére la ma sol si yére yu jot bay diree ko si suuf maanaam bëgg feex def lu ma neex moo tax ma jaar si coono yooyu yëpp war fas yi xuus ndox yi <clears throat> wa mittu yëkkati naa alwaqaara wegeel wa bientu jaay naa alaqaara pàkk li xas li xas ngir góox sàngara wa rashfil xada yi ak muccu potok sangara ba dégg nga nee wala muccu kas ba dindi naa wegeel gi nekkon ci man sama bak pak imam yeb yëpp jaay naa ko lépp naan sàngara laa ko jinde jaay na sama pak naanee ko sangara muccu ko kas sangara ba sama wegel gi nekkon ci man dindi naa ko pour mën a sangara nu ma neexee man sàngara ma baaxul walaw la timaaxu surutoon séeneen ilaa shurbi raaxin jëm ci naan sàngara lama kaana du nekk baaxatul na fami sama gémmiñ bil muraxi ci baat yu xoromu yooyu su nekkutoon ne bëgg naan sàngara moo tax baat yooyu duma ma leen ko wax di leen moccal di ànd ak yéen waaye damaa bëggoon rek ngeen xam lu ngeen ma jox ma ñëw fii naanee ko sàngara looloo tax ma jàngal leen baat yooyu rek daa nag du ma am lu ma naanee ba pare te du ma naan moom bu bon dana ko lay wala kaana korom nekk saaka di màng daxaa sama jombale sama jombale ay faaq sett sa li ardine raaq jëm ci suufee raaq bi xam li subax ci yenu ay kurus surtout bëgg naan sàngara njombale gi nekk ci man doo xam mat maas gi jëmee leen ci suufee raaq xanut ak dara lu muy ay kurus rek Denga, nga su dutoon njombale gi nekk ci man loolu du ma ko man njombale googu nag li tax ma ko ba andi len ba fi ngeen jox ma lu ma naanee kon nak falaa tax daban bul mer wala <laughs> man de kii jeexal wala tas kaban bul yuuxu wala taatiban bul ma fa onsri sama ngant wa dax na jërul ngay mer nak jërul may jërul sama ngant leer na rek laa wax de <coughs> amul benn ngant wala taajaban bul yedd li cheikh ñeel mag moo xam ne aban na sax na bi max nañ ci pàkk boo xam ne maanaam kër goo xam ne axan na naat na waddanin ak biteelu sàngara boo xam ne jamono mooy dinaan gi njàng léegi tafaxa fuur na maanaam fees na bay tuur mu ne bul yéemu nag wala taajaban bul yéemu bul nag ci am mag mu mel ni man mm. wala ab sëriñ bu mel ni man mm-hmm. nan la mën a saxee ci barab bu naat <laughs> dégg nga sàngara yi wër ko muy naan loolu bul ci yéemu ndax loolu mën naa am mm-hmm. ndax nit rek la mu ne fay nal mu daama mm-hmm. naka sàngara sàngara su yàgg nag moom lañu tuddee mu daam tu xaw yi dafay dëgëral arinsaama yàq wa tashfi muy saafara asiqaama feebar mm-hmm. watan tan fii muy dàq ataraxa njàqare de kon mu ne sàngara dafay tax sa yax yi dëgër dafay tax sa feebar wér dafay dindi sa njàqare kon ab sëriñ bu ko naanee bu mu la jaaxale mm-hmm. a ah, waxu fi dara <coughs> waas fa suruur yi boo neexee bu ko defee maat yi daf xam ne kon loru way moo tax mu dagg tàgga wa asfat sellal naa a mbégte boo ne wa asfat suróor yi mooy firi feeñal mu daama naka sàngara asfa suróor yi wa asfa suróor yi mooy mbégte bi gën a sell moom sàngara nee na bi gën a neex mooy sàngara isaamal waquuru ndem ki nga xam ni mu aji wewu ja amaata yëkkati na sutural xayaa malaani kerse wa taraxatam sànni ko sàngara mooy mbégte bi gën a neex ndax mu ne boo ko naanee loo wegu wegu loo dégg nga bëri woon kersa dangay ngay sa kersa ga fële mën a def lu la neex mën a wax la neex moom mbégte gu raxu dara la moom wa ahlal xaraami mooy mbëggeel gi gën a neex wa ahla neexal na alxaraama mbëggeel soo baa ma ne da ngaa dagg tàgga wala wa ahlal xaraami sàngara mooy mbëggeel gi gën a neex isa mus isa isal mustahaamu ndem aji bëgg ja bëggiram asaala na asaala dañal na iktitaamal hawa na bug bànneex wafta daxatam leeral ko rek laa wax de dafa bëgg wax ne sàngara soo ko naanee mbëggeel gi nekkoon ci yow da nga koy génne wax ko mu leer nañ feeñal ko du am leneen loo ci nëbbu kon sàngara mooy mbëggeel gi gën a neex rek laa wax de wala mooy neexal mbëggeel fa buux na leeral bi xawaaka sa mbëggeel boo barit nga seddal xasaaka sa baljat fa zandu asaaka daju béy baa moom sa njàqare la bii si sàngara xat-xadaa ci la takke dégg nga mu ne li nga bëgg nang nga ko wax te sa xol na ko seddal dégg nga boo amee daju béy goo xam ne ni mënu tàkk te mooy njàqare gu mënul dañ boo naanee sàngara rek mu daal di dañ mhm. maanaam boo naanee sàngara mu mel ne doju bee bi tàkk na rek maanaam sa njàqare dañ na rek laa wax de mhm. dégg mhm. wa daawi na nga saafaral xuluuma gaañ gaaña wa salli na nga nocci wala na nga miisal alhumuma njàqare bi bintil kuruumi ci doomi resin jamoo karmu allati bi nga xam ne tuqtaraxu danañ ko sàkku mu ne na nga faj say jàngoro say góomi xol nanga dindi sa njàqare ci sàngara si ñuy tuddee bintu kurum nga xam ne ni ku ko bëgg rek sàkku si ko am ko waxu sa jagleel nañ alxabuuqa naana ngoon bi saa xin caaji nandal yesuuqu boo xam ne ni dana dàq balaa almashuuqi nattug aji waaw bëgg isa ma tamaxa ndem yëkkati na bëtam mu ne booy naan ci ngoon ga nag na nga ànd ak koo xam ne nii dalay xellil kaas koo xam ne ni bu yëkkatee bëtam xool la nga xool ko rek sa njàqare dañ maanaam boo na nga ànd ak koo xam ne koo bëgg la sopp ko lool nga xam ne ni bu la xoolee rek yow la nga bëggoon yëpp nga daal di ko xam mhm. nattu mbëggeel mooy ñàkk jot ci li nga bëgg mhm. waaye jooju nag bu la xoolee rek li nga bëggoon yëpp nga daal di ko am na mhm. nga ànd ak ku di naan sàngara de cee yàlla wa way mhm. yu dana yëkkati mhm. kàddoom bi sawtin ci kàddu goo xam ne tamit du dana jéngloo xibaarul adidi buumi ñeel ko dana jéng loo ñeel ko xibaarul adidi buumi weñ insada dem xotti na kàddoom dégg nga mu booy naan sàngara da nga ànd ak boo xam ne bu jooroo rek dégg nga daldi yi daal di jaay dégg nga na kooku xibaar ngeen def wala waasi na nga mooy an biir allazi ki nga xam ne laa yubixu du daganal wisaalal manihi jokkoo aji xoromu isa ma samaxa nem tabe ci laaya biiram ku lay laaya biir ne bu def loola neex nee na kooku mooy ko bu ko faale wajul nga wandeelu filmi ci ay pexe walaw bil mu xaali doon ci ay nar lay don wa daa bàyyil maa yu lay nit ñi wax waxus jëlal maa salaxa la la intéressé rek yow mooy la xéwén ñi yàlla nee na del wëndeelu ci ay pexe di la da mhm. lay nit ñi wax nag bu ko faale bu paree lu nit ñi wax loolu bu ko faale xoolal la la xamal njariñ rek yow nga nekk ca boo mhm. faarix na nga ko abaaka sa baay mhm. isa ma abaaka bañ na la bu mudda tàllal tàllal bu <laughs> sit na nga rëbb man jublu na la nee na lu la nit jege-jege bu la bañee yow ba ko foofu tàqali ko moom <laughs> tàllal sa fiit rek ku la jublu si nga mën koo fiit rek fiital maanaam defal lu la neex wasaafi na nga sellanteeg alxalila xarit wa naafi na nga sori albaxiila aji nay wa awli na nga joxe aljamila aji rafet wa waali na nga joxe ba tey alminax ay may rek laa wax de muy waaye xarit moom boo ko amee na ko sopp sopp gu sell ku nay moom na ko sori del joxe lu rafet del maye nga ne ko waa lii nga ma digal dara baaxus su ma ko defee nag ba dee ñëw nag mu ne wulus na nga wéedu bil mataa bi ci tuub amaama zahabi ci kanam dee maanaam njëkk dee balaa nga dee rek nga tuub garaawul fa man daq ko ubbi baaba karimi buntu aji tedd fataa mu ubbi kon buntu bi yàlla boo ko fëggee mu ubbi de waaye buntu bi yàlla fog ko rëccu lay ànd ak te xamoo fan lay dee di ñëwee moo tax lii jàngale la rek waaye du lañu war a roy ba de yaa si am solo ndax moom wax na léeg-léeg xaslu lay def mooy lépp nii ceexan rek fa qultu ma wax la waññal ko baxin iskay baxin iskay soo rafetloo dara naan baxin baxin mën ngaa wax bax bax mën nga koo ko baxin baxin bax bax baxin baxin yëpp nekk dégg mhm. nga li riwa baxin iskay baxin iskay li riwaayati ñeel sa solo wow fin cëm watu fin mbas li riwaayati ka ñeel na sa réer de wala sa bew sa xam-xam bu bari bii ngay génnee kooku moom xam-xam bu rafet la bu sell de mhm. ba yem na ma lool may wax iskay waaye sa mbon gi ak sa jëfi réer yi nga nekkee mhm. kooku ñaaw na lool ba cëm rek laa ci wax fa billaahi maa ngi gën ci yàlla min ayil ayaas yi si ban gi cosaan ay su mooy sa cosaan ban askan nga bokk daal ay su moo di nasab faqad andara nii lortuloo na ay su ko mbir mu jafe mi jafee xam gi nga daal lortuloo na ma ma yaay kan fa mu ne abu zeydi ne maa waxi bu bëgg ma an usiha ma leeralaan nii ci man walakin waaye nag sa ukkan nii danaa dàkkantal bëgguma leeral waaye damay dàkkantal أنا من أتروفة الزمان ما يكيم تاني جمنا وعجوبة الأمم ما يكيم تاني قيدي وأنا من الحول ما يبخواكن الذي بنا خمنا احتال بخنا في العربي عربي والعجمي أكعجمي من ما يكيم تاني جمنا دي كيم تاني قيدي ما يبخكر بنا خمنا بخنا عربي بخي عجمي غير أني لوين من ابن حاجة دومي نكلا كام كام سخلا دينغ ولا بوك haadoo euh, gotti na ko maanaam tooñ na ko dahru jamono faxtada moom mu daal di torox dégg nga ko am soxla laa soo xam ne jamono mooma gotti rek damm sama mbir yëpp ba ma wàcc nii torox waabu si wetin boromi xale laa bàyyi ay xale laa ba daw yoo xam ne feeñ nañ misla lahmin comme yàpp alaa wada min bu nekk ci giriyaas maa nga am xale yu ndaw yu mel ni ku nekk ci euh, yàpp bu nekk ci giriyaas ñi ko lakk nu yàpp bi tuutee noonu la sama doom yi tuutee wa axul aylati borom ak ñàkk almuilu ka aji njaboote isax taala bu fex bu fexee lam yulam kenn waru koo yedd mu ne ku ñàkk te am njaboot su fexee nag waru leen koo yedd maanaam moom ma ne bu buy saay saay ko lay aala yuilu mooy njaboote na aala yailu mooy ñàkk na aala yailu ci la aylu ñàkk na aala yuilu nag mooy bëri na njaboot ku ñàkk ba pare bëri njaboot mu ne bu fexee bu ko kenn yedd xaala wana araawi aji nettali ji faaraftu ma xam xëy isin jamono boobu àndoone moom abu zeydin abu zeyd la zurray bi kay borom ak sikk wala ak borom ayib ma xam ne waa ji daal abu zeyd la nga xam ne yàlla def na ci moom ak sikk ak ak ayib a musaw wi di waji chey bi aji ñuulal kanam ak bay jaaw xam nga ne ku sa kanam bi jaaw pare nga ñuural ko bëgg woon ndax nit ñi wan leen na ne ndaw nga loolu mooy ñuural kanamu béjjaaw ndax léegi-léegi mag bëgg def dara loo xam ni ndaw rek ko mën am mu ñuulal kanam nga bu baax a baax bu ñëwee ni ñu yaakaar ne xale la fekk mag mu mage la loolu la bañ dégg surtout bu ñu laan jaay jaam dañ ko daan def ci jaam yi ndax ndax nit ñi maa bu fekkee da <coughs> kii sa karaw noonu rek te jibloo ci naxaat ak yooyu dara nekku si dégg nga mhm. waaye boo jëlee sa kanam def ko loo xam du bee jaaw mhm. ndax bëgg takk si misaal ab xale bu ndaw te xam na ne bu dee mag nga du bëgg mhm. nga bee jaaw kooku xor la baaxut nga dindi sa bee jaaw gi ci ñuulal ko baaxut bu dee jaam la bu ñuy jaay def ko noonu it baaxut waaye bu dee daa ko yaa ko def noonu rek jubluwoo ci leneen loolu dara nekku ci wasaani jàqloo na ma usmu tamarudihi màgg ak féttarloom wa qubxu tawarudihi ak bon ak rotom de waaye nag la ma tiitloo mooy gim fetturlu gu rëy gi bay naan sàngara ak barab bu bon bii mu rot loolu moom naqari na woon fa qultu ma wax loo ñeel ko bilisaani anafati ci làmmañ ak bañ wa idlaalil yi ak njeget ak xam njeegeet mooy jàmbaar rek dégg nga jigéen ju njeegeet mooy jigéen ju def ay affaires yu bëri bari di gëmmu bëri yeeg saaru waxin yooyu daal loolu mooy njeegeet maanaam moo waxeek moom ci jàmbaar mel ni ku ko xam ne alam yaa ani ndax jotut lakk ñeen la xanaa yow suñu sëriñ an tuqliyaa nga buddee ko nag anil xanaa ci ñaawteef gi ma ne ko yow suñu sëriñ bi xanaa jotul nag léegi nga basa ñaawteef yi fatadak fatadak jara mu daal mer wasam jara mu coow coowal gaynde wa tanakkara mu soppi xaalam wa fakkara mu daal di xalaat mu mer yuuxu ca kaw ba mel ni gaynde soppeeku nag ba si kanam moo xalaat su ma xaala mune ne innahaa naka guddi gii laylatu miraahin guddi sigir le la laa talaahin nekkul guddi xuloo dégg nga wa nuxsatu sur biraahin occasion naan sàngara la laa kifaahin du occasion xeex de mu ne bu ma yàqal sama sama mbégte mi guddi gi guddi mbégte la waaye du guddi xuloo occasion la boo xam ne ni xam naa ko war see naan sàngara du barabu xeex Fadi, kon bayil amma ba fen, la natala ilaa na talaaqa bañ dajee suba xaral bu suba nga ñew andil ma lii waaye tey moom guddi la fa faraqtu ma mom faraqan ngir ragal min arbati ci ñaaw jikum arbatu arbadati ci ñaaw jikum arbadatu moy jikko ju bon ju nan kat sangal di feñal jamono bi mande, loolu moy arbadatu la taalluqan dir aju bi addati ci digem su ko defé man ma dem bako fa ndax xam naa ne kii dafa man di mën naa def lu ne waaye nekkul ne damaa bëgg xaar ba suba ma ñëwaat wa bittu ma fanaan laylati sama guddi gi laa bi seen daaji sol xidaada nadami yére ten ten joog réccu xidaat mooy yére yu ñuul yi nga xam ne ku am dëj moom lay sol waaw dégg nga moom nag mu ne mu sol yére yu yooyu yére yi nga xam ne réccu la réccu daal bu doon yére la yére yi ci gën a naqadee sol mooy yére kuy tënj moom la ci sol ma rëcc rëcc gu mat alaa naqli si sama toxal xutal xadami jéegooy ndëggu ilaa ibnatil karmi jëm ci doomi sàngara sa doomi resin sa lal karami waaye waxuma doomu teranga ibnatul karmi mooy sàngara doomi resin resin dañ ci nal defar sàngara dox gi ma dox jëm ci barabu sàngara waaye demuma ci barabu teranga loolu laa rëccu waatu ma dëxalanteeg allah yàlla subhaanahu tudd na ma sellam allah axdura na du teew baada gannaaw ga xaanata baasin waaw dégg baarab jaaykatu sàngara wala ontiitu di jox nañ ma mulka baxdaad in nguur ak même buñ ma joxoon nguur ak baxdaad du ma teewati mukk ci baar bu ñu jaayee sàngara wala wa an laa shada mm. du ma sharaabi nala waa koonu sàngara mhm. fa ñuy naree sàngara dootuma fa ñëwati mukk mhm. wala rudda delloo nañu alee ci man enturu shabaab bi jamonoy ndaw mhm. du ma fa demati kon rëccu na la nga tax a teew ci barab boobu su ma innaa topp su ma inna naa topp ñun raxal naa laxas nañ wala takk nañ arin sa gërëm ya dégg nga su ko defee ñu daal di takk gërëm yi mbéemul ya وقت تغلي تي وقت تي جمونا مرمرل ما جمونا واو غديجي تموجي غديجا وخلينا نويت نك ما نام نباي باي نشيخ يعني دكان تنياري سرنجا نياري سرنج سفرة تموي أبو زيرين أبو زيرين وإبليس إبليس سكرا فعلا نون ترين تاكسيني جرم دال دي دم باي دي جنت نياري سرين يلونا نحن ما إبليس أبو زيد نياري سرين سفر ليش نامو إن أريد الإسلام ما استطعت التوفيق إلا بالله علي توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته